bassin de rétention bi nga xam ne moo nekkee fii ci Touba Daaru raxmaan ak ci Pof di moom am ay jafe-jafe gannaaw fuite bi nga xam ne am na ci ba ndox mi wal dugg lenn ci ay tool yi askan wi loolu nag tax na maire bu Touba ànd ak délégation bu takku ñu ràññee ci kilifa gi nga xam ne moo jiitee gendarmerie bu Touba waaye tamit ñi nga xam ne ñoo di chef de quartier ak chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ak conseil yi nga xam ne ñoom la kilifay gox bi yebal ñu nekkal leen ci maire bi fekk fa itam ñenn ci waa ONAS ñi nga xam ne ñoo yore wàllu liggéeyu bassin yi ak yeneen kilifay nguur gi nga xamante ne bi tamit bokk nañ ci ñi saytu wàllu liggéey bi tukki nemmiku bi nag li ko sabab du dara lu dul xool li nga xamante ne bi moom moo di jafe-jafe yi nga xam ne bassin yi indi nañ ko fi ak baykat yi nga xamante ne bi ñoo yàqule seenub lim ci kaw loolu nag maire mi nga xam le ne dina am benn commission boo xam ne dañ ko taxawal ci ndigalu état ci njiitul ki nga xam ne moo di préfet bi fi nekk waaye nag ñu fas yéene dugal itam askan wi nga xamante ne bii ñoom ñoo dëkk fii te am ci tool yi waaye chef de village bi nga xamante ne bi moo ci nekk ak conseil yi nga xam ne ñoom la kilifa gi yabal ngir ñu nekk ca mairie ba nekkal ko fi nekkal fi askan wi bu ko defee nag ñu mën a def nag ab doxantu boo xam ne daañu wër mbooleem tool yi xayma itam li nga xamante ne bii moo ci yàqu ci teewaayu ñi ngànk mbay mi ci réewum Sénégal waaye ñu mën koo xayma mën a delloo itam ñi nga xam ne ñoo di borom tool yi li ñu yàqule mën koo xayma ci wàllu koom jébbal leen ko mu li tubaab di wax ñu dédommagé leen loolu nag di commission boo xam ne fu ñu ci toll ci wàllu sos geeg waxtaan yeeg ñi ngi ko war a seqal daañ ci indiwaat yeneen xibaar maire nag mi ngi masawu coono mboolem ñi nga xamante ne bi yàqule nañ waaye di ànd ak ñoom mettit wi ñu ci am tey xam ne nag loo xam ne daal neexul kenn waaye day dogalu suñu boroom waaye lépp loo xam ne mën nañ ko ci fexe ñu teel a jot ndimbal li nga xam ne mooy bàyyi ko ci nguur gi moom dana ci def kéem kàttanam